بالجميل من ذكره واللقام حياة أحمد لا تتنا سرمدا ونبوة سوي الهدى عن قطيها بالقلم العليم ينزيلا هدى لزيد تعلمي أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه طريد سحسرتنا والندم وكل شر سوات الأقراد من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قيدا ذا عدمة من لقامه كل امين باذني وبعالمين هدى حاوي الاقوام وهو الذي من اطار ان هو ما تدبر فيه عصى رب الورى اضحكتنا أمان يكفات عند الشكر الأقوام وهو الذي من اكتفى بثوى ما قد كفى ولا يلاقي كفى ذوي الآداب الكرام الإله كالكعاد وبالفم أشكر ربي العظيم على كتابي الحكيم وفث فيه بعلم تفهم ذات صرفني كتاب ربي ذلك الكتاب به عظمت من عتاب وجعلي باقي زقامي هو قليل وحبيب لي مغنيان لعطابيب يحب ومن لبيب يطلب خير القلب ñun nag promotion sortante ay ndaw lañ ay médecin lañ yuy doo a génn ñu ngi sàkku nga ñaanal ñu nga ñaanal promotion bi nga ñaanal ñi nga xamante ñoom ñoo nekk fi ni ñëpp parce que bëgg nañ suñ promotion bi ñu koy dégg suñ tur bi ñu koy dégg ci fépp fi nga xamante ni xam foo xamante ni ci wàllu euh, xam-xam moo tax ñu leen fay woo ñu ngi lay ñaan nga nga nga nga nga ñaanal ñu ñaanal ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñaanal ñi nga xamante ni nekkuñu parce que ñoom ñëpp bëggoon nañoo ñëw bëggoon nañ la ziar si bëggoon nañoo fii nii mais ñoom ñëpp mënuñoo ñëw ñi jot a ñëw daal teewal fi kontaan nañ bu baax te di sàkku bu baax nga nga kiyal ñu bu baax incha allah. mbokk yi sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla def leen ay mag ba fi ngeen bëgg a yegg rek ngeen yegg fa. nee na li ngeen di liggéeyee moo jiitu ci lu nit di war a jariñoo muy wér nit moom bu wérul lu mu am rek mën na koo def ci bëgg wér ndax ku wérul dara dootu neex ci yow dara dootu baax ci yow kon daal li ngeen nekk mooy li jiitu nee na Serigne Saliou wax nañ ne mas naa wax ne fekkee liggéey yi bu am bu ci amoon fonction bu mu ciy yor médecin lay doon kon loolu moo jiitu soxna si nag yéene ni ñëpp jàmm ngir bëgguñu wér waaye Tuubaa gi mu leen indi ñoo ci raw nag defal na leen lu rëy defal na ko waa Touba itam nee na ngeen xam ne suñ xol sedd na ci yéen ñu ngi leen di ñaanal bu baax gis nga sunu kilifa gu mag gee mag a mag dëkk barki démb rek la dem ba ñëw ñu sedd yaramam xam ngeen ne loolu rëy na kon daal di ngeen xam na ñu ngi bég ci yéen bu baax jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke Mbacke ñu di la seereel nag li ma ci wax mooy euh, soxnaa mi Mbacke mii ànd ak ñoom day day day mbokkum kër gi ndax sëñ Fallou kat ku ne dégg na ci way ñu wax ni sa doomu bàyyi si Mourou Balla Dior mooy maamam mu am lu mu lu lu mu wane ci dëkk bi loo xam ni du mbirum politique waaye am jàngam tax président am lu mu ko jox li ko jox nag mu tàggat ci ndaw yi waaye lépp nag mbàkke li xew lépp ak ñëw gim ñëw lépp dañ koy sant yàlla di ñaan nga yàgg fi waaye di la leeral ni bu jéego yi amee jigéen ju baax ji la yàlla boole dox na ci ndax nit ku jàng rek mooy respecté sant sant mooy njëkk ci doomu aadama boo mu leen gërëm doo julli boo mu leen wér gërëm doo woor boobu wér yaram doo ko tal waaye soxna Faat Bintu Puy mii fi ne yàlla boole la ak moom am njàngam ma ko muy xool lépp loo xamante ni njëriñul réew mi la njëriñul kër gi la njëriñul dëkk bi la mu di ko mu di ko womat di ko indi fii bi mu coordonné ak soxna yu Mbàkke mu ne ko dinaa fa indi ndaw yi sëñ bi ñaanal leen fekk na ñoom yow Mbàkke ku yeewoo ci réew mi di jullit laa wax bu sañoon yàlla may ko jotug mu agsi ci yow nga ñaanal ko adduna bépp ñu ngi yaakaar ci yow ñaan ndax sëñ Fallou noonu Sénégal te loolu Mbàkke ca dox xol yëpp la bëgg réew mépp la bëgg tarixa yëpp la bëgg kon Mbàkke nga ñaanal ndaw yi waaye nga ñaanal sonam yàlla defal ko ndam te musal ko te muccal ko ba lim yéene ci ndaw yi ak lim yéene ci réew mi ak lii ko président jox mu am ci ndam Mbàkke ñoo ngi ñaan nga yàgg fi téye ñoo ngi ñaan yàlla ful sa fan yi suñu xel dal suñu xol sedd na lislaam bépp la bëgg sagub kër Sëñ Tuubaa la waaye cërub Sëñ Fallu nga kër gu ne bëgg na waaye Sëñ Fallu la am yàlla nga àgg na yoon Mbàkke yéen ñëpp similar one.